الفصيحة نبي سيدي الحاج مالك مولي دان جان حروف أ با جا دا هو موي تام سي يوم ومن لي ومن لي بو الحاج مالك دمي خمنا لي جلتي اتلاس الكتاب ومسلم كو خمني مولي جان تيري في المنطق اصول بيان الحاج مالك يا ومن لي ومن لي الحاج مالك جنة ببدل الفقه كو خمني مولي جان الفقه والنحو دينو جان النحو منطقي دينو جان

moo tax Seydina Muhammad gane àddina fajar moom rek lañ mës a ëmb ba àdduna sosoo ba tey mu nekk ci biiru yaayam kobas yaay ji ni ko yaay mu ne ko waaw mu ne ko heure sàngam lay judd ku dul yonent bi amoo Amina mu ne waaw mu ne ko waajalal sa bopp fajar lay judd waaye attention demal nga seet si ku ñuy wax safa moo la war a réewle Amina ñëw fekk safa toog mu ne ko bul teel a tëj sa bunt lu mu guddi guddi danaa la fëgg ndax heure tel lay am doom mbokk yi Amina nee na yëguma metit samay tànk diisul samay tànk diisul sama xel teeyul xoromuma dama jékki-jékki rekk yàlla yónni malaaka ni ko jëlal sa laaf bi raay ko ci biiru Amina moom la sama am alaaji Malick naan janaaxa fayrin nafa maa hëla min jusub moo tax Seydi El Hadji min jusub Seydi El Hadji Malick nee na bi nu ko ba mu a juddu yàlla yabal malaaka ni kon raayal biiru Amina mu raay biiru Amina Seydina Muhammad judd waaye mbokk yi xam ngeen lu yéeme keroog bi muy gane àddina moom Seydina Muhammad dafa indaale turam bi ko Amina ëmbee ba ëmb bi am 6 ci la am lu ko feeñu ni ko yàllaa ma yónni nee na li nga ëmb góor la bu juddoo tuddee ko Muhammad isa wadaatihi sayyidatuna Aïcha nee na ma ne ko nabi tey ngaa bàyyi ma dem wuti sondeel taalaat ko nee na rasulullah ni ko jaru ko mu ne ko kon lu ñuy niitloo njool Makka xar gémmiñ gi ubbi gémmiñ gi bëñee ñoo gën a wex perkaal ñu mel ni ku nekk ci bëccëg fekk Aysa doon ko laaj naan ko yàgg Yuusufa ku dàq damay dégg alxuraan di tagg taaru yonent yàlla Yuusufa naan fa lammaa ra'aynahu akbar lahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sama wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna min as-saghirina qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin ma gis naa bi yàlla def ci tànk taaru Yuusufa may laaj yàlla Yuusufa ku gën a rafet waaw akbar fi ñu toog di waxtaan sondeel ba ni kamit Sayyidatuna Aïcha jug di wuti sondeel jool Makka ni ko toogal jaru ko muuñ Sayyidatuna Aïcha nee na ma ne ko nabi tey ngaa bàyyi ma dem wuti sondeel taalaat ko nee na Rasulullah yi ni ko jaru ko mu ne ko kon lu ñuy niitloo njool Makka xar gémmiñ gi ubbi gémmiñ gi bëñ ñoo gën a wex perkaal lu mel ni ku nekk ci bëccëg fekk Aysa doon ko laaj naan ko yàgg Yuusufa ku dàq damay dégg alxuraan di tagg taaru yonent yàlla Yuusufa naan falammaa ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna haasha lillaahi maa haazaa basharan in haazaa illaa malakun kariim qaalat fazaalikunna allazii lumtunnanii fiihi wa laqad raawattuhu an nafsihi fasta'sama wa la in lam yaf'al maa amuruhu la yusjanan wala yakunan min as-saagiriina qaala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunani ilayhi wa illaa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jaahiliin ma gis naa bi yàlla def ci tagg taaru Yuusufa may laaj yàlla Yuusufa ku gën a rafet. Allaahu akbar. fi ñu toog ñu waxtaan sondeel ba ni kabaj Sayyidatuna Aïcha jug di wuti sondeel njool Màkka ni ko toogal jaru ko muuñ. dama bomb ko ci sama digg gannaaw man Malick Fawad Wele. Seydou Hadj Malick mbokk yi réew mi rek ngay ñëw fekk fi leen sama liggéey bii man ko am keroog xare la mbokk yi Sénégal bii moo am koo xam ne keroog bi muy judd moom